ishaaru la nag mooy loo xam ne tudduñ ci lu dëppoog mushabbah bi ba tudduñ ci lu dëppoog mushabbah ba wala ñu tudd loo xam ne ñaar yëpp la dëppoog léegi nag mu ngi ciy joxe na musaj example mu ne xuluqu fulaanin jikkoy diw araqu moo gën a sew mais an saba ci nooy ngelaw saba ngelaw lu jugee penku mooy ngelaw saba am ngelaw saba amul bakkankat ba di bari daf ko niru léeg doomu aadama moom ngelaw li xasab doomu aadama indi dara min lawazimi insaan ci loo xam ne doomu moo ko tax ko dégg nga mm-hmm. muy nooxi gi isa xaasalat ndem beejante naag xam nga ne wàllu beej kooku doomu aadama moo koy def beej mooy kafante rek di kafanteeg moom dégg nga kon istiaara bi lañ ca tudd dafa dëppoog mushabahu bii ba mooy doomu aadama mooy beej an faas mooy xarina ba mooy waaye ne sabaa gi namuñ ci ngelaw sabaa waaye lañ ci namm mooy doomu aadama kon loolu an faas moo ko wane kon na ba jeex na mu tuddaat bu beejanteeg beej ku koy def doomu aadama gi nga xam ne mooy bii bi kon istiaara bi dégg nga mu rashaxa la dégg makniya la tamit dégg ndax tudduñ musabbaw bi mu waxaat ne fayn yahlik nem alku na moom buur boobu fa kullu amudi qawmin bépp kenaw nit min a dunia ci àdduna yasiru dana mujj ilaahul kiñ ci alkaane ah suñ buur bi bu xal ko gu am ci àdduna rek dana alku su ko defee kon njiit ma la niroleeg amut muy kennu ndax kennu dafa yenu tabax bi njiit mi day yenu coonaay nit ña luy wane ne namut fii kennu waaye njiit la ci namu mooy yaxlik fa in yaxlik nam alkuna fa kullu amudi qawmin bépp kennaw nit yaxliku mina duniyaa ci àdduna xam nga kennu moom ci àdduna la nekk njiit mi tamit ci àdduna la nekk kon mina duniyaa du xarina bi xarina mooy fa in yaxlik bu alko moy wane kon fa kulle amori qawmin fi min adunia namu ci pote yi dañuy alko waaye lam ci namu mooy képp kuy njiit ba mel ni keno ci xenu mbiru nit ñi danga alko mhm. léegi nag mu tegaa si yasiru dina mujj ilahul kin ci alkande dégg nga dégg nga kooku yulaay mu mushabba mushabba mooy njiit mi xam nga njiit moom ilaahul ki jëm ci deere lañ ci namu fii alkaani fii deere lañ ci namu waaw mm, alquran na ko xataa isa xalaka xultum xaw nu ko mu ne ba dee ngeen ne nanga waaw ilaahul ki jëm ci dee xam nga ne delluwut ci musaba musaba musabahu bii bi ci musabah bi lay dellu fii musabahu bii mooy amut doomu aadama la nirole keno kon insaan gi mooy mushabaw moom lay niru rek luy wane ne amut gi daf koy euh, mushabaw bii la li mu wax ne yaxlik xam nga kenn du dee fa yaxlik nam dee na léegi lam tuddaat ne yasiru dana mujj ilaa xulkin jëm ci dee kook doomu aadama moo koy taxoo kon fii lam tudd ci istihaara ba euh, dégg nga dafay dëppoog mu shabax ba kooku istihaara boobu mu jarada la waaye tasriixee la tamit ndax tudd nañ mushabahu bi waxaat nañ ne inni naka man shadidul atsi aji tat mar laa ilaa yow mar gi lam ci nam mooy nammeel gi la niroleeg mar dégg waaye tudd ci dara luy dëpp luy dëppoog mar tudd ci dara luy dëppoog nammeel kon istihaara googu mutlaqa la tasrixee la parce que tudd nañ mushabaha bi bi waaye mutlaqa la tudduñ li dëppoog mushabaha bi tudduñ li dëppoog mushabaha bi ini nekk man shadidu an si aji tat mar laa ilaa liqaayik jëm si dajeeg yow man aji tat nammeel laa nammeel gi nag moom la niru leeg mar kon ishtiyaaq mooy mushabaha bi an si mooy mushabaha bii bi woo rek ba laylatin bëri na guddi goo xam ne nii maridat feebar na min kulli naahiyatin ci bépp wàll fa maa yu diw leeralut laa ñeel ko najmun biddiw wala xamarun du caagin weer dégg bëri na guddi koo xam ni dafa feebar ci wàll yu nekk mu ne biddiw leeralut ci weer leeralut ci dégg nga maridat lam ci na mu feebar na mooy lëndëm na ndax ku feebar mbiram day day nëbbatu maanaam mën nga ko sax bañ a gis lëndëm bu amee it mbir mi dafay lëndëm doo gis dara kon maridat bi maanaam aslamat lëndëm la aslamat nag moom la niru lekk maridat kon lëndëm gi la niru lekk feebar istihaara bi tasrixe la léegi mu tuddaat ne fa maa yu diw laa najmun wala xamarun ah biddiw ak weer moom buy leeral loolu guddi moo ko moo ko jegoo kon lam tuddaat dafay dellu ci mushabbah ba istiaara bi kon mu jarata la dégg moo waxaat sa nandal na la waxyaana saqaaki na la waxyaana dundal nañu bikki ci yow allahu yàlla innama ala innama alal iisi naka nekk na ci gëlëm ya nawrun dégg nga tontóor wal xuduuru mbergendi kama imahu ñooy kàmboot ga saxaak yàlla daanal wax yaa ne bikki laa ci yow lañu yàlla dundale waaw hmm? dégg da koy ñaanal rek yàlla bokk fi ñoom seen xel di dund mu ne fii la eh, istiaara ga nekk innama ala insi naka nekk na ci kaw gëlëm yi nawrun fleur jigéen ñi la niru lekk ay tontuur yu weex ni jigéen ñi weexee niñ taaro dafay niroog tontuur yi niñ weexee niñ taaroo dégg xarina bi andi ko fi waaye xarina bi mooy indima alal insi xam nga ne tontuur du nekk ci kaw gëlëm waaye bu mu waxee kaw gëlëm yi tontóor a fa nekk ñu xam ne kon dégg nga jigéen la bëgg a wax kon xarina bi mat na bu ko defee mu tegaat ci wal xuduuru kama imuhu wal xuduuru mbergend yi dafay dellu ci iis kamaa i e moo ñuy kàmbur dafay dellu ci nawru tontur kon istiaara e bi mutlaqa la ndax tudd na maa ilaahi mu musabba maa ilaahi mu musabba bii del tudd na loo xam ne dafay dëppoog li jigéen ñi nekk seen kaw mooy gëlëm yi mooy mber genn mooy mbaar yi def ci kaw gëlëm yi loolu ci mm, kooku mm, musabba ba mu jigéen ñi la la la la la jagoo tudd na it nawrun tontur mm, kii kon kamaa im kàmbut kambut nawru la la dëppoog mooy mushabba ba mushabba bii bi day na tudd na ko kon tudd na maa ilaay mu mushabba maa ilaay mu mushabba bi istihaara boobu mutlaqa la fële inni shadidu atsi ilaa liqaayika li war ne atsi bi nammee lañ si na mooy ilaa liqaayika mooy xari ba waaye tuddaatul dara luy dëppoog mushabba bu mushabba bi loolu mooy namusa ji exemple yi moom lay waxaane fi kalimatu saba nekk na baatu saba wéye moom ariu moo di ngelaw wala li nga xam ne taxu bu dana upp min mabin samsi si fenk waa jant ba istihaaratun istihaara makniya foofu istihaara makniya la mooy buñ xasaf mushabahu bii bi من اللي أننا نحن مشبه نرو لنا كم هم قالوا لولو بإنسان يشدو مارم وهو سيفني حسب المشبه بي بي مشبه بي بي ورومي تنجي ريجم شمو بشيء مش دارم من لواتي مي شيء يسال لا مشبه بي تقوك وهم أنفاس وما ينوحي الذي كان يقول هو من قرنة المكنير ما يقرن بي من استعان بمكنير وفي خاصة بون بحب بيجن تناكو كتر شيء حنا دفوت بلوغ مني دفوت بلوغ يفي دوم عرمه دفوت بلوغ يفي دوم عرمه دوم عرمه مشبه بي, بي. كون دا فتود لو خاني مشا بوبي موكو جاغو لول مودي استعاره تس مرشع ترشيح نغوك لو واني فين يالي فكل عمود القوم من في عمود نكن سي بات عمود استعارة استعارة تصريح يا جوكم تصريح لا ويا أصلية لا أصلية وهم قطع كفنا في يوم نير سب نير لنا رئيس القومي جيت نني بالعمود تكانو بجامي أنا كلن لا لا لا نتجنب وين نك كيبوش نيوم يحملوا دفع هنو wal xarinatu lay wane ne amul njiit mu la ci nam mooy yaxlik bu dee la mu wax ne wa ilaahul kinisiru na kooku tajrid la ndax dafa dëppoog dégg nga mushabbah ba mooy njiit ma njiit moom niru léeg kenn subbiha niru le nañ al istiyaaqu namm bil absi ci mar dégg nga bi jaamee tatalooy la leen boole mooy yuqulu ilal gaaya ci doy ba ku mar dana yuqulu pour num naan waaye ku namm it kam namm foo gisu ko du am jàmm fële siyaarati gi moom tasriixi dun rek goo xam ne asliye cosaan la xam nga nekk cosaan mooy baat bañ ko def mooy baat biñ def siyaara gi kooku euh, jaami dara nekkul mustaq mooy atsu wal qarinatu la lënkale la leen boole mooy ilaa liqaayika jëm ci dajeeg yow xarina bi wane ne fii artu gi namuñ ci mar waaye cofee lañ si nag mooy ilaa liqaayik tuddaatuñ ci fii dëppoo mushabba bi tuddaatu fii dëppoo mushabba bi bi woo yëmu istiaaratu mutlaqa istiaara nekk si baatu marida istiaaratun tabiiya parce que mustaq la subbihaat niroon nañ ko bi zul azulmatu lëndam bil marada ci feebar wal jaamio la leen boole xafaa u mazahiri nashaati mooy nëbbug feeñ waaye cawartaane ku feebar ci añ waaye ca wartaane day nëbbu ci moom guddiit bu amee ni duñ gisati ca wartaane gi du feeñate su ma tuqa topp ñu xotti meneen maradi ci feebar maridat gis nga fal istiaatu istiaa gi tasrihiyatun tasrihiya la ndax tudd lañ tabiiyatun la parce que baat bañ def istiaara gi mustaq fi maa yudiu lahaa wax gi mu wax ne maa yudiu najmun wala qamarun kooku tajrid la ndax dafa tudd loo xam ne ni wilaaya moom al musabba musabba bi mooy kan mooy lëndëm ki lëndëm mooy dëppoog biddi bu feeñ ak bu nëpp musabba bi mooy feebar ki mhm. an nawru mooy azahru fleur awi abyad wala bu weex minu ci moom wala muraar dañ na ma ci moom xunaa fii annisaa mooy jigéen nawru fii nam si na mooy jigéen bool jaay ma boole jigéen ak fleur al xusnu mooy taar fa istiaaratu istiaara gi nag tasrixiyatun tasrixiya la mooy tudd nañ mushabahu bii bi mooy nawru asliyatun cosaan la parce que baat bi ñu ko def kooku jaami la lu mustaq wa fi zikru xuduur yi tudd gi mu tudd xuduur foofu tajriir la ndax xuduur kat mber gend jigéen ñi nekk ci kaw gërëm yi ñoo ko jagoo loolu yëfu jigéen ñooñu la maanaam yëfi yëfi hmm? waaw jigéen ñi nekk ci gërëm gi la jigéen ñi la nëru lekk tontuur xam nga jigéen ñoo wat ci kaw gërëm gi كلول يلائم المشبه كلول تحت جريلا وبذكر الكمائم تدقو انتو دو كامبود كامبود مو يلي امبو فلور تنتوري كوكو ترشيح لا مانام يفي فلور لا كون لول دفع اجوشي مشبهو بيبي كون ترشيح لا بنتو دي تجي تجي تجي ترشيح لا استعاقه كمطلقه كون فالاستعاقه مطلقه لا Yeah. su ko defee mu dugg ci tamrin yi ne tamrinaat li ay jéemantu la bay leer lal na wa kullu istiaaratin xeetu bépp istiaara fi maayati ci lii dikk waaye li nga ràññale ak tarsiix tarsiix allazi bi nga xam bee xamuñ ci kon tarsiix moo ci nekk waaye dafa bëgg tarsiix bi nga leeral ko xaala asaliu rafa da ngay leeral istiaara bi ban façon istiaara ak nu mu ko nekkee comme ni ñu ko defee fii comme ni mu ko defee ci exemple bi nga leeral rabi loxob saxaayifan ay téere loolu bi am na loxo mu ne loxo loolu bi bind na ay téere kon loolu am na luñ ko loolu lépp mu dagg ko andi da min lawasimi yaa ngi léegi nag fii ngay génne tarsi mu nekk am na sutura saru dafa mel ni bind garabu sarwu garabu sarwu nañ taxawee noonu mel ni ay bind xus nañ ci rafet sutuuraha mooy bindib hmm, mooy bindib lolli bi maanaam li lolli bi bind dafa mel ni garab yi maanaam dafa mel ni bi maanaam garabu sarwu yi sax ci lolli bi mu rafet hmm, dafa mel ni mooy bind moom la niru rek bind loxo boobu lolli bi bind na ay téere waaye la loolu di melal ci gàncax yu rafet moom la niru ak téere dafay mel ni garabu saru léegi sutur lan moo ko jego mushabba wala mushabbahu bihi xam nga bind la tuddaat fii fii moom xarina bi ñëw na ba pare jeex na mu tuddaat nag dafa mel ni bind garabu saru maanaam dafa mel ni taxawaayu garabu saru sutura xam muy bind waa jooju nga bind loxo loolu bi waaw gàncax yi nekk si loolu daf lay futur lu ko jago dégg <coughs> hmm, def ko bu baax nag boo ñëw isa man daaxaru nem jamono jarra xëcc na ala unaasin ci aw nit kalaakiloo wala boog jarra diri na ala unaasin ci kaw ay nit kalaakiloo ay dëndam anaa xam mu yeesal bi axari na ci ñeneen jamono daal bu naxalee ci ñii rek jógee fa demaat ci ñeneen rek maanaam moom musibaam di am ci benn mbooloo kese wala benn nit tey mu dal ci kii musibaal ko ba mu yaakaar ne yàqu na mu tegg ko musiba gi dem dal ko ci kii jamono amul ay dënn kon am na lu mu ko niruleeg ba pare mu indiwaat anaaqa isan lam ko niruleeg moo jee ko anaaqa wa xaala woon al mutanabi fi sammi kaafuur ci ngàññi kaafuur ne naamat nelaw na nawaatiru misla garde corps misri yi an saali ba wala seeni kundi yi ñooy garde leen nelaw nañ ba bàyyi kundi yi di yàq waxat bachim na fër nañ wama taf naa te jeex gut alaanaa xiilul cëgg ya cëggi tàndarma yi maanaam sangi misiri yi dañoo bàyyi jaam yi jaam yi yàq alal ji yëpp lekk ba fër loolu la ñoom jaam yi la ñëw lekk yi sang yi la naama gi namu ci nelaw waaye sàgg na la ci nam kon kundu fii namul ci kundu waaye dafa am ñu bëgg a niru léeg kundu mooy jaam yi dégg nga niru léeg kundu mu ne waqat basim na fër na fër nañ waaw jaam la ñëw lay kull kon sang misa yi sàggan la bàyyi seen jaam la bëgg a wax dégg waxat bashim na lekk nañ ba fër ba maa taf naa te jeexul alaxir ci giir bashim na bii am na ci lu muy dellu nga su ko defee mën nga def tamarin yow rek wala njël bi الإسلام والسلامة والتوفيق إلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته